Gabon Production Académie Médane TV les meilleurs euh, jërëjëf ñoo ngi dellu di sant yàlla bu baax di sant itam waa Mbàkke Kajoor bu baax ci teeru bi ngeen ñu teeru sëñ bi ndax. Euh, da ngay yëg ni solo su kilifa yi ñu jox ñun ndax fii euh, Serigne Cheikh Thioro dong munoon na fi toog rek mu doy moom ak sëñ baax Laxat bu ñu fi toogoon rek si réunion bi waaye gis nañu kilifa yëpp a ngi toog ñoom ñëpp ñëw nañ teew loolu nag day wane solo yi ñu jox réunion bi ak cër bi ñoo jox ñoo ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm ndax boo gisee salle bi nu mu feesee xam na ni. lii ci ay cër la bokk ñoo ngi leen ci sant bu baax a baax ci teeru bi ngeen ñu teeru ak day wane itam euh, fi ngeen noo teg euh, maa ngi sant bu baax nag gis naa fi sama xarit di Serigne Baara Tobbi di sama dëkkandoo moom sama xarit la may nemmeeku lu lu bëree bëri maa ngi koy sant bu baax di ko ziar euh, di wax ni nag. ni ko Alaaji Jaaja waxee léegi yaakaar naa ba fi ñëwee màggal gii di màggal Mbacke Kadior bokk na si moom njëkk organisé bu dul bi ma njëkk sax ba fi ñëwee daaw moo bu njëkk kon nag euh, marqué na ma te itam nag bi ma ko organisé ba pare rëccuwuma ko li ma ci def rek rëccuwuma ko ndax euh, màggal bu am solo la ginnaaw bi mu waxee organisation bi ñu organisé itam ñi neex a àndal lañu sous-préfet wax na ko léegi kon nag li ñu fi dajale woon tey rek mooy di waajal màggalu euh, Mbàkke Kajoor sëñ bi ñëwaat na léegi ci li ko waral ci kàddu yu am solo te di màggal gi nga xam ni màggalu bañum aajol moo tax li ci administration bi def euh, nag jàpp na ni da koo defal boppam jàpp nañu itam ku ci nekk individuellement pris que ni loo ci def rek ci yow lay dellu donc nag moo tax taxawaay boobu lañuy ñuy am waxtaan nañu nag euh, point yi nga xam ni daan nañ ko fi waxtaane euh, bi si njëkk mooy mbiru sécurité ndax xam ngeen nii fi nit ñi dajee bu amul kaaraange rek du dem kon nag moom la ñuy njëkkee aar nit ñi aar dëkk bi loolu nag gendarmerie moo ko féetewu ñoom nag comme ni ma ko faral di waxee boo leen joxee sécurité rek danga leen koy bàyyi moo tax commandant naa léegi bi muy wax yaakaar naa ñaari baat rek la wax euh, nawoon fa woon moom lañuy ñuy taxaw taxawaay boobu aar li nga xamante ni pèlerin yi fi ñëw waaye itam taxaw ci kaarange këru kilifa diini yi fi nekk yokk ko ndax yenn saa yi am na si ñoo xam ni màggal indiwu leen dañuy ñëw ndax leneen loolu nag dinañ fi fekk gendarmerie des fi dispositif bu am solo bu ñu paree ci gendarmerie ñu dem ci sapeur pompier yéen xam ngeen ni ñoom seen taxawaay mooy euh, aar nit ñi ci wàllu yenn yi nga xam ne mën na leen dal euh, ñaan nañu yàlla dara bañ fi xew kenn bañ fi lor waaye dinañ fi def dispositif ñoom itam ay éléments yu doy def itam li nga xam ni mooy ay ambulance nga xam ni ku fi am jafe-jafe rek lu mu tuuti tuuti ñu mën laa yóbbu fu gën a jege bu dee Daaru Musti wala bu dee cas yi xaw compliqué mën nañ évacuer ba Touba waaye ñaan nañu yàlla kenn dara bañ fi dal kenn euh, ñoom dinañ fi def dispositif boobule euh, ñu teew fii euh, ay bis avant màggal gi ci bisu màggal gi ak itam lendemain màggal gi itam bu dee am na ay euh, pèlerins yi nga xam ne des nañ ci dëkk bu ñu jógee ci sapeur itam ñu wax ñi leen jege rek di croix rouge croix rouge nag souvent ñoom waa sapeur la ñu àndal ndax ñoo bokk liggéey ñoom itam dañuy taxaw ci mbooloo mi di seet nit ñi nga xamante ni yenn saa yi bu ñu amee ay yenn jafe-jafe yi ñu dimbali leen sowe leen ñoom itam dinañ fi def seen dispositif incha allah nee nañu dinañ déployer seen éléments yi nekk Touba. ak yu nekk Daaru Musti bu ko jaree itam ñu yëkkati seen élément yu nekk Kébémer incha allah bu ñu jeexalee ci Croix-Rouge nag jëm ci nga xam ni ñooy euh, eaux et forêt eaux et forêt rek lu ñu leen di ñaan souvent mooy leen di ñaan rek mooy autorisation nga xam ni day permettre euh, matt yi nga xam ni moom la jëfandikoo ci waañ yi ñu mun am autorisation pour xam ngeen nii euh, ressources yi dañ leen di aar te ñoom ñoo koy aar donc nag lépp li ñu ci def day aajo autorisation autorisation yooyu bu dee autorisation yu jege si département bi la service départemental bi mooy secteur bi moo koy joxe yooyu yaakaar naa yomb na si ñun puisque si suñu loxoy nekk si suñu loxoy nekk la nekk yeneen yi nga xam ni yeneen autorisation nga xam ni si yeneen région la jógee yooyu directeur eaux et moo ko yor parce que amaana sëñ bi am na ay taalibe nekk ay Tamba wala yeneen région yi nga xamante ni dañoo bëgg di ko indil ay mat euh, war na euh, aajoo nañu am autorisation yooyu itam dinañu euh, comité d'organisation bi dina saisir directeur ba pour autorisation itam teel a ñëw ak itam li nga xamante ni mooy contrôle yi ci tali bi ñu woyofal ko ndax màggal gi bu jotee dafa am ay taalibe yoo xam ni dañuy yéene sëñ bi ay mbir wala taalibe yi nga xamante ni dañoo yoroon seen ay matériel seen ay lal yu nekkoon si yeneen dëkk ñu bëgg ko indi pour euh, samp ko fii ndax ay gan yi nga xamante ni bëgg nañ leen dalal si seen ay kër loolu itam nag ñu def ci ay xéwal ci contrôle bi euh, dimbali ko nit ñi ko indi euh, yéwénal leen maanaam li nga xamante ni mooy ex bi loolu nag wax naa waa sa waa Eaux et Forêts e ñu liggéey ak comité d'organisation bi pour que ñu am benn canal de communication bu leen di permettre à chaque fois bu ñu gisee li nga xamante ni fii la jëm si ñu mun a xam ndax effectivement fii la jëm si bu dee fii la jëm si ñu mun cee ñu mun ko bàyyi mu mu mu jàll. donc nag loolu waa waa Eaux et dinañ ko taxawee incha allah li si des mooy yeneen produit yi nga xamante ni fii la jëm si itam euh, yëpp ñu mun koo bàyyi ndax euh, ñoom du matt bi kese am na yeneen produit forestier yoo xam ni. yenn saa yi taalibe yi dañ koy indi pour fii xam ngeen ni ay yu mel ni ay buy pour defar ak ay jus yooyu yëpp taalibe yi dañ koy indi yooyu itam ñoom dañ koy contrôler waaye yooyu incha allah dinañ ko dinañ woyofal contrôle bi incha allah ba yooyu nga xam ni taalibe yi dañ ko euh, dañ koy indil sëñ bi mu mën a mu mën a yegg si incha allah euh, bu ñu paree ci waa euh, Eaux et nag ñu dem ci Senelec xam ngeen ni Senelec nag mooy nee naa ñoom. service bu bu bu am solo la ndax ñoom ñoo yore mbiru courant bi te xam ngeen nii li ñuy def nii sax bu fi courant amul woon duñ fi mën a ne asuba nag màggal nga xam ni day mobiliser li nga xamante ne matériel bu bari ak sonorisation ak yeneen yi si des ak gan yi nga xam ni dayu ñëw war a soxla ci nekk ci ay ay kilim ak yu mel noonu yooyu courant war naa nekk fii en permanence loolu nag li ñuy laaj waa Senelec li si njëkk mooy mise hors délestage mise hors de charge nag mooy dinañu fexe ba courant di fi période du màggal semaine avant semaine après nga xam ni courant du fi coupé ndax euh, am na ñi nga xamante ni taalibe yi am dañuy teel a ñëw ñoom commencé liggéey bi donc une semaine avant dinañu fexe ba mettre Mbàkke Kajoor ak environ hors charge ginnaaw loolu nag ñu wut benn groupe électrogène boo xam ni. dafiy nekk préposition ndax li ñu mettre mettre hors de on n'est pas à l'abri ay accident technique loolu da ciy am ndax mbiru technique la kon nag dinañ fi déployer benn groupe boo xam ni groupe électrogène boo xam ni de secours boo xam ni bu demee ba mënatuñoo te euh, cour coupure am mu jël euh, la relève surtout nag ci cérémonie parce que cérémonie bi moom courant mënu fa coupe donc loolu dinañ ko préposition li si des nag Senelec souvent xam ngeen nii xew-xew yu mel nii xew-xew diine yu mel nii dañ ci profité waale euh, defaale ci ay xéewal ci wàllu ay branchement ndaxte sëñ bi itam dafa am ay taalibe yi fi nekk di ko ñëw dëkk si soxla courant mu am ay demande yoo xam ni dañ ko ko jébbal loolu itam euh, dinañ ko sëñ bi demande yi mu yor dina leen ko jox incha allah ñu euh, ñu jël ko en charge wutal leen li nga xamante ni mooy ak compteur branché seen ay kër euh, leneen li des itam mooy extension xam ngeen ni dëkk nu mu munti mel rek ren ba déwén dina yokk même bu dee benn kër wala ñaar astuma nag dëkk bu mel ni Mbàkke Kajoor di dëkku diine nga xam ni nit ñi dañuy daw di dëkk si donc nag euh, diggante at ak at dëkk bi day yokk day gën a yaatu loolu itam am na solo ñu yokkal na réseau bi yokk réseau bi mooy jël ay poto courant yóbbu leen fi nga xam ne ñoom tabax na seen ay kër ñu mën leen a euh, euh, jottali li nga xamante ni mooy courant mooy extension loolu nag compétence su mairie la maanaam mairie koy demandé Senelec lu mu am am doole sañ ca ñëw si dëkk jàmbur naan dafay extension maanaam loolu commune bi moo sañ laaj ni man kat bëgg naa extension balaa Senelec di ko def donc nag demande bi maire nee na def na ko ba noppi. kon nag waa Senelec balaa màggal gi incha allah cinq kilomètres yi nga xam ni moom la comité d'organisation bi laaj dinañ ko hmm. war a mottali incha allah ki fi toogal Senelec wax na ni dinañ koo def li si des mooy éclairage bi parce que xam ngeen ni ampoule yi yenn saa yi dafay lakk bu leen euh, changé itam lampe dafa am durée de vie euh, comité d'organisation bi laaj nañu changé leen soixante-quinze ampoule loolu itam Senelec ak mairie parce que li ñu mënti wax itam éclairage public compétence su mairie la moo ko yore donc seen euh, collaboration ñu changé lamp yi nga xam ni euh, euh, comité d'organisation laaj na ko ak itam poteau yi nga xam ni daanu nañu parce que nawet bu jot rek lii poteau yi dëgër dëgër dina am poteau yoo xam dinañ daanu gis naa ni nag Senelec jamono ñu génn ñoom léegi poteau ciment rek la ñuy photo defatuñu poteau bant ñoo ngi koy bëgg a changé yaakaar naa loolu programme national la ñoo ngi ci. ñoo ngi ci euh, ñu jël poteau euh, bois yëpp ñu remplacé ko ay poteau euh, béton yaakaar naa yooyu donc nag balaa programme bi di fi egsi nag poteau yi fi nekk nga xam ni ci nawet gi daanu nañu yëkkati leen defaraat leen incha allah loolu Senelec dina ko dina ko def ginnaaw Senelec nag ñu dal ci wàllu santé di wér yaram wér-gu-yaram nag itam moom lu am solo la ci nga xam ni mooy màggal ndax fi nit ñi daje rek Euh, war nañoo mën a jël ay dispositions pour que ñi nga xam ne ñoo yor wér gu yaram jege leen donc nag loolu euh, ñi nga xam ne ñooy districtu euh, Darou Mouhty dinañ fi teg benn équipe boo xam ni moo fi nekk ay fan avant màggal gi ak ay fan après pour mën a jël en charge yenn pèlerins yi nga xam dañ fi ñëw li nga xamante ni dépassé na leen nag. ñu mun leen évacuer mooy évacuation nag dañ ko mettre en place fii muy ay ambulance ak yooyu ambulance nag léegi macha allah xaw nañ cee bërile bu dul ci arrondissement bi sax mun nañ dem ba ci département bi ñu mettre fii euh, ambulance ci lim bu lim bu doy léegi li si des itam mooy lu am solo mooy médicament yi médicament yi xam ngeen ministère de la santé euh, bu màggal bu mel ni jotee da ci jox dotation médicament Euh, comité d'organisation bi laaj na ci euh, cinq millions loolu dinañ ko bind ma euh, jotali ko nga xam ne ñooy kilifa yi mooy ministère de la santé te am nañu yaakaar ni loolu dina am ni mu amee woon daaw donc nag waa santé loolu lañ leen doon laaj ginnaaw gi itam ñu jàll ci li nga xam ni mooy ndox mi ndox mi nag ñi ko yor mooy waa hydraulique sëñ bi wax na ko léegi am nañ fi ay forage waaye comme que bis bi nit ñi dañ fi ñëw xaw a takku ndox yi nekk si robinet yi di doy il faut ñu boole ci ay camion citerne yi nga xam ni ñooy dem di duy ndox mi nekk ci biir quartier yi képp ku soxla ndox ñu mun la ko jox ak kilifa yi nga xamante ni ñoo ngi si dëkk bi ñoo mën a prépositionner ay citerne si seen buntu kër yi ndax xam nañ ni euh, bis boobu dañ koy soxla bu baax a baax loolu nag daaw hydraulique defoon na fi sept citerne ren dinañu fexe ba matal fukk yi nga xam ni moom la comité bi laaj euh, daaw itam defoon nañ fi euh, euh, ñaar fukki bâche à eau bâche à yooyu nga xam ni dañ ci sol ay ay ay ndox yooyu itam souvent dañ koy jox kilifa yi ñu def ko ci seen waañ yi ñu nekk ci waañ yi di ko jëfandikoo nga xam te leen di jege ñu koy jëfandikoo donc dinañu fexe incha allah ba lépp li nga xam ne defoon nañ ko daaw ñu def li ko ëpp. am na ko fi wax léegi nag ñu jox leen ay bâche de qualité loolu itam dinañ ko jotal waa euh, hydraulique ñu seet ndax euh, euh, daaw ba ren bâche yi defar nañ ko wala buñ ko defarul ñu jéem a seet vraiment yi gën a baax yi ñu indi ko fii ci fii ci Mbacké Kajoor ak itam nag li nga xam ni mooy entretien forage loolu itam dafa bokk ci mission service hydraulique ñu ñëw fii def entretien sëñ bi li mu wax ci extension bi nag ndox mi loolu itam ñoom am nañ ci itam Euh, am nañ ci compétence ñoom waa hydraulique bu dee ñaari kilomètres ñu ñëw def études yi déjà même bu ñu ko matalul ñu ñëw def étude technique yi ñëw xool ko nan lañ ko faisabilité bi lañ koy defee ci ginnaaw gi nag bu ñu amee ku mel ni conseil départemental mu defal ñu ko ndax ñoom ñooy def étude technique yi set nan lañ koy defee techniquement ginnaaw gi conseil départemental bu ñu ko mënee defee baax na wala benn partenaire bu ñu ko mën a defal mu mu defal ñu ko loolu dinañ ci jublu incha allah. Euh, ginnaaw hydraulique nag ñu wax aussi ci wàllu euh, CSA CSA mooy ñi nga xam ni ñoom ñoo yore wàllu ceeb bi loolu sax sëñ bi wax dëgg yàlla waxu si sax loolu man maa ci euh, wax ndax lu ci am solo ndax kuy amay gan bëgg nga bëgg nga leen teral te teral bi nag xéewalu gi ci la ci la bokk te dinañ daf suñu kem lay kattan sëñ bi ren incha allah ba CSA li ñu warloo ak màggal gi ñu mun ko génnee. avant màggal gi di di di jot incha allah comme ça euh, ñu teg ko ci loxo xalif bu tedd bi mu euh, terale ko ay ay ay ganam moom ak njaboot gi yëpp euh, donc nag loolu lañ fi eh, amoon yaakaar naa ci ay service UCG ci wàllu cet gi UCG nag balaa may sori damay wax ni wax dëgg yàlla autorité religieuse gërëm nañ leen sant nañ leen ci seen taxawaay loolu nag awma ci benn mbetteel ndax UCG wax dëgg yàlla bi ñu leen sosee ba tey ñëpp gis nañu amélioration bi am ci organisation cérémonie religieuse ak seen taxawaay ni ñuy mobiliser wu wax dëgg yàlla te ñoom boo leen ko waxee rek ñoom bis boobu la ñuy commencé mobiliser euh, particularité bu ci am nag mooy ñoom chaque fois dañuy wax comité d'organisation bi ñu def bésu set setal dañoo fekk sax comité bi moom di nekk ci déjà donc ñu ñëw en appoint incha allah ñoom itam dinañ mobiliser lépp lu ñu am ci personnel bi nekk Touba bi nekk Darou Mousty ak bu mu matee bi nekk Kébémer ak matériel bi ñu yor mooy nga xamante camion nga xam ne ñoom la ñuy jëlee mbalit bi ak benn yi ak ñoom seen yëpp dinañ ko mobiliser incha allah ci bisu 16 euh, décembre fii ci Mbacké Kadior ànd ak euh, comité d'organisation bi ci njiital euh, sëñ Baara Laxat nga xam ni moom mooy coordonné wàllu boobu. ñu taxaw incha allah def set setal bu am solo luñ ci yokk nag mooy loolu baax na waaye itam intervenir après aussi lu am solo la ginnaaw màggal gi itam bu demee ba màggal gi def ñetti fan ñeenti fan ñu ñëwaat itam def benn opération ma après parce que loolu itam lu ci lu ci am solo incha allah loolu am ñu si benn jaaxle que waa UCG incha allah nañ taxaw taxawaay bi ñu taxawoon daaw ba ñu gërëm leen nañ ko taxawaat ren euh, incha allah. Euh, bu ñu jógee si UCG euh, ñu jëm ci service d'hygiène dama leen fàtte woon sànq ñoom lañ leen waroon boole ak santé ndax ñoom li ñu yor mooy wàllu prévention euh, ñooñu itam dinañ intervenir incha allah si saupoudrage bi ak seen ay produits dem ci kër yi kër yëpp ñu mun koo désinfecter pour ñu mën a accueillir pèlerins yi ci biir kër yi nga xam ngeen ni nawet baa ngi soog a jeex am na ci. yenn saa ay insectes yoo xam ni xaw ma nag ndax fii waaye ñun moom Kébémer insectes yi sonal nañ donc ñu mun koo euh, saupoudrer euh, ak yi nga xamante ni mooy yooyu ak yu mel noonu ñu mun koo saupoudrer ba gan yi fi nekk nga xam ne duñ fi am benn euh, jafe-jafe buñ ci jógee nag ñu jëm ci wàllu ONAS ONAS mooy ñi nga xam ni ñoom ñoo yor wàllu camion hydrocureur yi ak toilette mobile yi bu may ñëw waxtaan naa ci ak ki nga xam ne moo ko yore mm. di service régional bi di Fall moom itam sëñ bi gërëm na ko bu baax ci taxawaayam daaw indi woon nañu fi ñetti camion hydrocureur ñetti camion hydrocureur ñëw na fi daaw ak 15 toilettes mobile nee na ma ren incha allah dinañu fexe ba am lu ko ëpp surtout hydrocureur yi dinañu fexe ba am lu ko ëpp incha allah te nag dinañu teel a ñëw au moins 4 jour avant màggal gi incha allah dinañ fi ñëw comme ça képp ku soxla ñu kuréel la en tout kilifa yi en tout cas ñoo koy déterminer fépp foo xam ne bëgg nañ camion yi dem fa dinañ fa dem incha allah euh, toilette mobile yi itam dinañ ko mettre à la disposition ci kilifa yi ñoom itam ñooy xam fu ñu koy placer ñu placer ko fa en tout cas daal loolu dina fi ñëw incha allah li may wax ni nag ñoom dinañ ko répété ci CRD ba incha allah bu ñu demee ba toog fa euh, ginnaaw gi muy ay DPC DPC moom direction nationale loolu itam. man loolu engagement personnel la dinaa waxtaan ak directeur bi incha allah seet nan la ñuy def ba baas yi nga xamante ni ñoom la ñuy mettre à notre disposition ñu mun ko indi ak nan la ñuy dimbalee ba loolu dikk fii ci euh, Mbacké Kadior euh, ginnaaw service yooyu nag dafa am ñoo xamante ni ñoom kenn mënul wax màggal gi te waxu te kenn du leen wax ni yéen si li ngeen di yëngu muy mairie ak conseil départemental maire nag mbir mi mbiram la màggal gi màggalam la moo tax duñ ci sori sax ci wàllu engagement ndax lu leen ne ko def li mu mën ak lu mu mënul dina ko def mu nekk compétence am mu ñàkk nekk compétence am dina ko taxawee incha allah. yéen mooy màggalam bu njëkk de. waaw boole ci mooy màggalam bu njëkk en tant que maire de commune euh, conseil départemental nag comme ni ma ko faral di waxee moom itam di sant di gërëm président ci taxawaayam ci cérémonie yu mel nii moom nag vraiment du xaar sax. ñu naan ko defal moom mooy laaj euh, naka la ak nan la mu intervenir loolu moo tax euh, ki ko fi toogal wax na ni engagement yi ñu jël fii dinañ ko respecté ak ñoo ngi xaar itam expression de besoin service yi nga xam ne ñoom lañ koy laaj ñu defal ko expression de besoin loolu dinañ ci dinañ ci taxaw incha allah di euh, sant rek di gërëm di profité balaa may jeexal si chef de service di leen gërëm ci seen taxawaay ñoom ñëpp gendarmerie sapeur pompier service d'hygiène élevage ñoom ñëpp maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax ni ma ko faral di waxee joxe ndigal euh, mën naa wax ni yomb na neex na waaye ñi koy jëfe ñoom ñooy ay jàmbaar dëgg-dëgg moo tax maa ngi leen di sant si seen taxawaay souvent bu ñu leen joxe ndigal pare rek ñoom ñoo si euh, taxaw waa Eaux et Forêts waa Serelec UCG ñoom ñëpp ki ma tudd ak ku ma tudd ñoom ñëpp maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci seen ci seen taxawaay di wax ni nag ginnaaw bi ñu fi jógee si CDD bi dinañ dem fële ci Louga def fa CRD incha allah ci kanamu gouverneur li ñu fi wax si engagement si service départemental dinañ ko fa engagé waat waaye boole ci service régionaux yi fa nekk li ma leen fi waxal ñoom dinañ ko waxaatal seen bopp ci table ji incha allah donc nag bi ñu fi jógee incha allah dinañ ñu accordé ak sëñ bi ñu seet date bi nga xam ni moom moo ñu ñu arrangé ñëpp ñu jàpp ci datu CRD bi incha allah. Euh, taxaw ci kanamu gouverneur fële ci Louga def euh, CRD buñ ci paree rek incha allah di ñaan suñu borom yàlla may ñu egg si bis bi jàmm te ñu tal ko bépp engagement bi ñu fi wax rek ñu mën ko mottali te yàlla dolli ñu kattan ba lépp li nga xamante ni yéene nañ ko yàlla may ñuy def lu ko raw incha allah jërë ngeen jëf. Bienvenue dans votre maison de production. GP Gabon Production. Avec une équipe dynamique, un personnel professionnel, des lots de matériel de la nouvelle génération, Gabon Production a réussi de devenir une maison de production inédite. Ay photoshooting dans un studio autrement, ay photographes yu xarañ lool, des appareils de la nouvelle technologie. Ainsi, Gabon Production est la meilleure maison productrice du Sénégal. Des photos artistiques, photos de cartes d'identité. Vous les amis, vous les couples, venez obtenir Pour tous événement màggal cant mariage réception ba ci anniversaire contactez-nous ñu daal di couvrir seen événement avec de très belles images des vidéos à haute qualité oui c'est bien possible ak Gabon Production en outre dans le cadre de vouloir servir la population sénégalaise sur le plan économique social culturel et religieux chaîne bu mag bii di Académie Médine est à votre disposition avec des informations qui vous seront livrées à temps réel ay journalistes i caméraman déglu au 77 585 57 36 wala ci 77 589 83 83 Gabon Production Académie Médine TV les meilleurs dans les besoins de la population sénégalaise.